danga danga pression. xaw sonn rek xam nga organisation dafa métti. waaye mais du loolu mais ak sa ak ay weer yu weer ngeen di ngeen di waajal dafa métti. non tàmm nañ ko tàmm nañ ko. naka coono yi. waaw ça sant yàlla quoi. lamb moom ak coono ñoo ànd quoi ak coow. waaw coow ngeen di dem pour la deuxième fois di xëccu ji couronne roi des arènes. moom la ñuy ñaan yàlla. am ndam lu sedd guy. waaw. nekk ngeen mbër boo xamante ne am ngeen chance su war a bëree pour une deuxième fois pour xëcc roi des arènes bi indi ko alors que yeneen mbër yi benn yoon la ñuy am chance su xëcc ko alors fu la première fois bi ñàkk ngeen ko deuxième fois bi lan la leen jaral. waaw xam nga làmb moom lu nekk dangay ngay dox ba dal waaw parce que du palmarès mais du da ngay dox ba dal ci donc dañ euh, fexe daal ba bis ba ñu def lu le maximum daal waaw. voilà combat bi passé ñu seetlu bi muy bëreeg euh, Balla gis nañu poids bi da da ko wàññi woon bii nii man personnellement ma seetlu ne xaw na yokk tuuti masse par rapport ak adversaire am la wala. waaw l'essentiel mooy que ne li ma ci ma combat bëri passé moom passé na quoi jëtul explication bon combat bi ñu ñëw liggéey nañ ci. liggéey boo xam ne tamit dañ ñaan yàlla am ci ndam daal lu ñu yaakaar ne daal bu ñu ko am njëriñ daal def nañ ko quoi euh, li nga ko Euh, moom ki nga xamante ne mooy mooy euh, Modou Lo jàpp nga ni du ko sonal physiquement parce que temps bi guddul aussi. waaw bi mu njëkk a bëri Eumeu Sène noonu la toloon noonu la toloon kon du garaw du garaaw am na loo leen di moytu ci Eumeu Sène parce que ni ma ko gisee démb laajte naa ko wàññi na poids bi macha allah euh, séché na muscle donc nee mën na mën na bëre ak yéen deux ma bu demee ba ci am rek ku amul yaakaar mooy moytu mais bëre la lu mu laaj na ko def ñaan yàlla am ndam. waaw. merci beaucoup. voilà.